waaw dañuy toog ci euh, jamono yi gis ne directeur HLM mu ngi def ay communiqué suy jëkk yi communiqué ne génne titre foncier boo xam ne cinquante deux sept cent cinquante euh, vingt cinq bi la génne muy titre foncier boo xam ne numéro boobu ñu ngi ko roccee ci biir quatorze cinquante et un loola dayul tey ñu gis si biir OPS mu def communiqué boo xam ne dafa wax ne quatorze cinquante et un état moom lañ ko joxoon ku ko jox ñu koy laaj Bagoor Jaay ak njabootam mosuñu koo jaay état te jaayuñu ko 97 moom mi wax fekk ko fi waaye wax jooju dañ ko dépassé woon bu fekkee ne respecté nañu état du Sénégal ti lii nga xam ne président Macky joxoon na diggal ne lépp luy suufi jàmbur nañ ko delloo seen borom moom bu ñëwaatee tey nag di waxaat 451 Mamadou Sy Mbengue amul sunu kersa amul sunu teggin waaye kon ñun ay lébu lañu te jaral na lu ñu nekk coow yi am ci Sénégal yaakaar naa ne ci wàllu lébu ji bu ci duggee day yokkaat xamba gi. que bëgguñ ci ay yegg ak moom ñu di ko xamal ne ko décision ba ñu jëloon ca justice ak ni ñu respecté justice ak li nga xam ñun xam nañ ne mooy dogal loolu lañ téye ne moo am ba tey que dara du ca deñ ngir justice wax na droit justice atte na justice delloo na borom keneen mënu ko faa jëlee te ku dul moom du ko fa jëlee ñu bëgg a jàmm jooju ñuy utal ñi nga xam ne dañ leen dugal ci guut am seen alal liggéey ko mu lew ñu jël seen alal def ko ci defax def ko ci béréb donte suuf sa nekk na loo xam ne ñii ko moom jaayuñu ko te ñoom ñu jox leen lu lewul taalal nañ loxo képp koo xamee ne dëkk nga fa am fa kayit goo lewul ñu war ko defaraatal kayit goo xam ne ne dem ca cabinet ya notaire ya ñu wax ka naka lay ame kayit su ñëwee ñu jàmmoo ko waxtaane ko parce que jox nañ baat président ut jàmm que président delloo nañ ko njukkal bi ñu ko gërëmee sant ko bi mu ñu delloo suuf si ne ñoo ko moom te la mu waxoon ca jam ñaa gën delloo la nit mu nga ca ngoon nañu féexal Macky Sall may ko jàmm bañ ko di ko indil aw ay ñi koy indil ay nag seen bopp leen tax a ak seen nafsun Macky Sall santaanul ku jël suufi jàmbur santaanul ku siif suufi jàmbur bu ko santaanul du wax ne delloo leen ko seen borom ngoon bu ñu toogee def ay communiqué di jaxase bopp nekkul si jub ñu bëgg na coow yi yem fi te bañ am ñu am jàmm lébu yi lay nag ragaluñu ragaluñu tey ragaluñu ëllëg lu mu leen jaral jaral ñu lu ko ëpp ka daañu delloo suñu yëf ñu waxoon naa ne ci nag ci biir Sénégal ne jàmm ñu tax a jóg waaye bu fekkee dañu bëgg jël sunuy suuf nag Cap Vert gi ñu ko seexal ku mënta fay nag fi génne